damay joxaat microphone bi Ibrahima moo am tuuti lu mu bëgg a leeral mbooloo mi bisimilah. jërëjëf kilifa gi li ma bëgg a toftantal ci kàddu gi mooy gannaaw xa kilifa gi dafa gëm xam-xam kilifa gi saa su nekk dafay dox ci xam-xam tey dis e université bi may na bourse étude pour bépp jeune sénégalais bu am bac bëgg a def diplomatie ak relation internationale ak géopolitique ak géostratégie. pandant juróomi at bépp doomu sénégalais bu am bac dootoo fayati bourse pendant cinq ans bu dee da nga bëgg a jàng affaire diplomatie affaire relation internationale affaire géopolitique ak géostratégie donc xalifa bi loolu ñu ci prix bi ISRIS moo la jagleel loolu pour lépp loo xam ni ci xam-xam la ak lépp loo xam yëkkatiku la jërëjëf juróomi at bépp doomu sénégalais ku fi nekk ak nekk bitim réew dootul fayati fii ak juróomi at ay bourse loolu ñu ngi la koy jagleel jërëjëf